te bu ba le 16 li ngeen ma sas dinaa ko def facilement incha allahu rabbi yee di nuyu ñi fi nekk ñëpp di nuyu sama papa yi toog nii di leen wax ne le géant du Cap-Vert moo xewle Abdoulaye Diouf mooy borom Cap-Vert waa Yoff dañu bëgg a dem mais waa Ngor ñu ngi xaar tike yi dañu bëgg mu jàpp ci yaa ma gën a xam waa Ngor dañu war a dem parce que affaire bi affaire de Cap-Vert la waaw waa tànk dañu yaakaar waaw ngor wa Cap-Vert ay

man boo ñaaw maa ngi xiiru gor xiiru gor nag baadoolo lay dal dama parce que dañ taxaw boo léegi mu ngi saaga ndey nit bu respecté yaay war na saaga yaay jàmbur man sama yaay seex la dama bëgg sama yaay dama saaga yaay jàmbur barke alxuraanu karim saaga naa bu seex su ma la yénewul door la ci suuf daanu ma la ci kattanu suñu borom lu leer laa lay wax di bokk ba bi taxee ba léegi yaa ngi takki rajo yu wax rek yaa ngi dem télévision wax rek xeeru gor ma yow bokkuñu ci làmb di ma def ci ndam yaa ngi ne ay Dakar nga dégg man Dakar maa ma ñëwee mos a dugg Dakar andi ko Dakar muy man du ma sa morom ci du ci benn côté yow mosoo yóbbu mbar top sec sa wax a bëri nii ngay tël di wax rek yow benn jël bu rafet mosoo ko daan mbër yaa ngi jël tàqal rek daan maa la ko wax ne huit février bi dem sama yoon incha allahu rabbi waaw dafa am lu mu wax man lamb yëpp xam nañ ma depuis 2014 maa ngi yàq lamb commandant Thioune mën na ma seede man du ma waxal doomu aadama lu ñaaw lamb moo ñu boole li ñu war a def ci suuf man xam moom la si suuf buñ neexee ñu waxante xas-xas loo mais gis nga nañ dég nañ déglul de rek nañ déglul de li ngay wax dama la déglu waaw waxal ko boo paree nga may waaw boo paree ma wax ma toog nga laa am jom man ak yow su ma la jàppee góor la. am na lu wax nag nee na moom dafa toj fii dem grand conseil de l'État jël ko su ma ko daanee lan laa su ma ko daanee lan laa kii su ma ko jàppee kii su ma ko jàppee su ko jàppee dina xam ne voyageur u ginax bu doxee ba dajee douanier wu muus këyit bi ma taxu koo jàpp bopp bi rek. maanaam ay combat booy ñi ma bëreel bërewaat ñoom man maa ngi def 14 combat yow sa 10 combat nga fi def ñoom lamb boole ñu lamine bu rëy moo ñu boole maa yow lamine bu rëy moo ñu boole. tabu jour ba booy déglu ma fii ma wax la waaw tabu ma laal maa yow maa yow waa baax na barki Mouhamed nga wax barki Mouhamed man bu ma soogaleeg yow. dégg-dégg yow sa booy allah yàlla baax na jéem mën a xam sax waa di di di profito di woo waa bu ma ne Cap Vert nag mooy tànk su ma ne tànk mooy ngor wakaam yoof ñun ñun ragaluñu fi ñu jëm gis nga wax ju bëri feesalul biir yoon bu soree ndaw a koy dox kii li muy wax ni na ko wax ba bés ba maa ngi woo le ministre Abdoulaye Diouf Sarr borom fii ak fële waaw bu ñu waxee fii ak fële mooy yoof ak ndakaaru waaw na jàpp si bés bi dañ koy xaar di woo le lion noir Amadou at Ati le maire de Ngor l'infatigable lu ñu am mu dugal ci loxo ñu ngi koy woo di woo Antou Gueye Samb responsable APR Ngor ñu ngi koy woo ci bés bu baax a baax di woo Abdou Karim Ndiaye borom black and white di woo suñu papa Tra borom Noflaay Bits di woo suñu papa Baye Boris xam nga borom la Ngor timis ah la Ngor yaatu na di woo ñi ci kaw nii bandi yi tarkindaay Ibou Ndiaye Ibou Ndiaye Ibou Ndiaye waa kër Baye Alaaji Ablaye bés bi seen bés la. combat bi combat chef de village la. yee te man chef de village la man jaraaf lañ ma tuddee ab jaraaf jaraafam ngor lañ ma tuddee kii du mooy fekk Ndakaaru di ma daan. jërëjëf en tout cas daal yéen ñaar combat yow yow xam nañ ne yow xam nañ ko. waaw baax na yow xamoo dara. Ah, yow yaa gën a niil ci bëri xam lépp yaa xam lépp booy ma jàngal la bëri teral la ndànk naa la dóor ba say mbokk yërëm dama lay duma naa la dóor maa ngi woo waa Colobane yëpp di woo waa Kaolack di woo waa Touba maa ngi koy woo ci combat bu baax monsieur woo Fallou Faye di woo président ngi koy woo Bekkaay doomu Colobane maa ngi Adama Ndiaye dofu tonel doomu ndey gooñaa maa ngi koy woo bu baax di woo Fallou borom mees yi maa ngi koy woo di woo waa Guy Ndiaye yëpp di woo Adim Diop